jërë ngeen def seetu Sénégal TFM xale yi ñëpp naan TFM lañ bëgg mbokk yi mbaa jàmm ngeen yéen doo ñu ngi leen di nuyu gërëm leen ci ànd bi ak télévision Futur Média dellu soit ak yéen ni ñu koy defee guddi gu jot euh, quartier général euh, du rassemblement sax waaye daje la boo xamee ni euh, dañu leen koy proposé ngeen di ko xaar ak ay gan yu màgg ci réew mi ñuy àndandoo ak ñoom di leen ndokkeel nag xam naa ni bi kenn nelawul ndax ñun waaye yéen itam ñu nit nelawuñu ndax yéen ngeen jaral ñu ko ba tax rek lu ñu nas rek dañuy bëgg mu doon loo xamee ni day jóge su sunuy xol euh, di dugg ci seen i xol donc ñu ngi gërëm sénégalais yëpp ak yii fi nekk ak yi fi nekkul euh, ku ci nekk rek gis boppam euh, ci jotaay bi la nga xamee ni moo di quartier général alors tey nag ñu tàmbaleeti préparer leen ay sujets yu am solo yi ñu leen jagleel itam bu leen ko fàttee bokk na ci ndimbal yi loole xam naa du jar sax ma leen koy fàttali bu ñu demee tuuti daañu wane numéro téléphone yi nga xamee ni voilà di ngeen ci mën a woote bu ko defee ku dugg rek ñu mën ko teral jox ko li ko jagleel ñu euh, nuyu Oustaz Papane yaa Oustaz Yaar la euh, jox la sa wàccuwaay ndokeel la et puis di la wax massa coono. wallaay jërëjëf El Hadj Pape ndax démb gàmm nañu màggal nañu. wallaay <laughs> dañoo màggal ba fajar. wallaay wallaay. macha allah maa ngi lay nuyu. maa ngi lay ziar maa ngi lay ndokkeel bu baax a baax. ñaanal xalif généro yi na ci biir réew mi. Mhm. ñu yàgg fi lool te wér. amiin ñaanal njiitu réew mi ñaanal boroom kër gi. alaaj <laughs> Pape euh, ñaanal kilifa yi réew mi yëpp. Mhm. di la nuyu di la ndokkeel. bu baax a baax di ndokkeel sëriñ gànna mi fi bàyyi ko démb mm-hmm. nga xam ni démb mbooleem lislaam bi ñëpp bég nañu mm-hmm. ci gën a xam kanay soxna jaaratullaahi mm-hmm. démb mbooleem kuy jigéen yokk na ak góorgóorloom ci borom këram yokk na ak góor góor góorgóorloom ci jaamu borom bi subhaanahu wa taala démb wane na jigéen joo xam ne laaj pap jigéen june war na roy ci moom xam ni Sénégal teraanga bi nu yàlla defal amul feneen euh, wax nañu démb kanay Cheikhul Khadim euh, jaar jaaram am na ñoo xam ne wax nañ ma ni ma murit mhm. waaye démb gën a xam kan ay Seexul Xadim mhm. moo tax nit pour nga bëgg ko il faut nga xam ko ba noppi waaw moo tax waxtaane gii nuy waxtaane mag mooy mhm. lan ñun li nu am mooy lan moo boo leen vérifier li ma wax ne Sidina Muhammad moom boo ko vérifier rek topp ko boo càmbaree rek daj boo càmbaree rek càmbar rek te càmbar gi yomb yëg ci sa xol bu fekkee sa xol defaru na waaw bu fekkee sa xol defaru na sa xol baax na am na ñoo xam ne nag seen xol dafa muuru xol bu muuru nag mënoo bëgg yàlla mënoo mm. yëg Seydina Muhammad sallallahu alayhi mënoo yëg sunu mag ñu baax ñi mm-hmm. mais bu sa xol baaxee mm-hmm. mag mënu tudd mm-hmm. di nga am yëg-yëg bu sell ci moom c'est ça en fait mag mënu tudd mag mënu tudd waaw muy mag yëpp nag muy mag ñëpp nag kuñ magi tarixa yëpp magu tarixa yëpp magu boo dee boo ñu tudd Cheikhul Khadim bu sa xol baaxee di ko yëg boo dee murid ñu tudd Seydil Hadji Malick bu sa xol baaxee di ko yëg boo dee murid ñu tudd Cheikh al Islam wala tijaan wala ngay xaadir ñu tudd Cheikh al li ñu am ci yàlla kenn rek la ñu dëkkmal mooy rasulullah mhm. moo tax koo gis muy mu indi problème yi rek mooy ñi nga xam ne seen xol moo defaruwul mhm. problème bi mooy xol bu defaruwul mhm. xol bu defaruwul nag yàlla nañ ci yàlla musal yàlla nee fii ci man alal du fi jëriñ askan du fi jëriñ li fiy jëriñ mooy xol bu laab yow ma laa yanfau maalun wala banuuna illa man ata allaha bi xalbin salim kon yàlla na defar suñu xol laab yàlla na defar suñu yal na yàlla def suñu xol yal na yàlla jagal suñu xol alaj pap ginnaaw bi ma la nuyoo ndokkeel la yow itam mhm. ci sa taxawaay euh, ci réew mi mhm. sa taxawaay ci plateau bi sa taxawaay ci këru diine yi mhm. yow itam nu ngi lay ndokkeel ñaanal la yàlla lafa la cet guddal sa fan ñaanal suñu jigéen yi Adja Mado Adja ba Adja Coro Mouhamed Ndiaye ñoom ñëpp rek. <laughs> Adja Madeleine ma ca nënnax. waaw yal na yàlla tey de tay baasam bu fant bu baax la def. ak sunu yeneen jigéen yi teewoon di fàttu law bi. Dieynaba Seydou Ba moom itam taxawaayam di jàmbaar moom itam. <laughs> Uh-huh. Euh, démb ñu bari xamuñu woon ne Touba titre foncier la. Ah. Euh, waaye démb ñu bari. c'est vrai ah ñu bari découvrir nañu numéro ba. kon loolu njàmbaar tee moom Dieynaba nu ngi koy ndokkeel ah, Fatou Dieng moom itam ah, démb. jàmbaar la moom itam jàmbaar la. sunu jigéen yëpp rek ñoom Yacine Sey euh, ñoom Bessel ñoom ñëpp rek ñoom ñëpp lañ papa xale yi ñoom ñëppay demee ñoom ñëppay demee xol ci hmm. émission bi moo tax euh, euh, dama leen di yërëm parce que xol lañ ciy demee ñoom ñëpp xol la ñuy demee buñ dee def fi reportage yi buñ dee préparé sujet yi dañ ciy dem ak xol hmm. ak lu ñu mën waxtaanee moo tax ñoom ñoom it ay jàmbaar nañu terrain bi <laughs> a <laughs> yàlla ñoom soxna naata mbay ñoom ñëpp rek ñu ma tuddul eh, eh, ak kilifa yi ñëw alaaj Mour Mbay Garmi mu eh, borom mbaxana mu weng mi waaw moom la sénégalais yi bëgg nag moom la sénégalais ñëpp bëgg moom moom temps yi yi bëgg ko am feneen ah, ah, ah. fenn la ko bëgg yemale temps yi moom Modou Ndiaye mi nga xamante ni moo ñuy surveiller mooy surveiller internet bi démb a xale yi daal Mamadou Mamadou Mamadou Mbay Garmi bi la ñu def jouer ci internet bi te xam nga xale yi bu ñu xasee ba def la ba def naa ko bind ni euh, Macky Sall nee na ci foowu xale yi rek laay wax de du dëgg de ay foo rek mooy yi ñuy gis ci internet nee na Macky Sall nee na ñu créé ko defar ko ba mu mel ni WhatsApp bu Macky Sall la ne Macky nee na ku toog sa kër rakkam Aliou Sall dina la dina la avance deux cent mille <laughs> ci quatre cent mille leen seen kër xam nga xale ku ñu xas ba jàpp rek <laughs> dañu lay foowee di la foowee di la foowee di la foowee man yàlla bu ma xale yi foowee bu ñu la jàppee dañ lay foyee mais c'est gentil nag c'est très gentil c'est très rigolo nag. waaw lu reetaanu la mais mais sëñ Sidi Ahmed Mouhamadou Habib dafa yenn saa yi kenn wax nga def sa noonu la fekk sa noonu. yenn saa yi kenn bindal lu lu garaaw. yow démb xale yi fooyee nañ la sa o bi commentaire nañ ci ba tey <laughs> yenn saa yi nga gis ku ne oustaz a noppil bàyyil gànna wax. <laughs> xale yi dañ lay fooyee yenn saa yi. sëñ <laughs> Sidi Ahmed Mouhamadou Habib daf ne Pape noonu amul. wallaay noonu amul man ko lu am c'est très gentil mu ne ma soppi bu yéex a ñëw. ok ok mu ne ma soppi bu yéex a ñëw. ñooñu di bindi loolu uh-huh. kenn ku ci nekk fa ngay toll cofeel waaw mm. uh-huh. bu gànn di wax jël benn point boo xam ni mm-hmm. wala jël benn sëriñ boo xam ni mm-hmm. yow moom nga yaakaar doo bëgg mu génn foofu xale tuddee léegi nag su ma daggee gànn dugal ko ci beneen sëriñ <laughs> ci beneen gaam ah kooku it uh, soppeem te xamuñu ni conducteur nga yore yow da ngaa calculer un plus un égale deux waaye ñun nag xam nga ñun murid moom xër rek <laughs> di ñaanal ñoom yal na yàlla barkeel leen moom daal mbalak a gën toog ci internet bi saaga ak wax lu bon ak wax lu ñaaw ak yéene nit ñi jàmm téléphone bi lañ ne di wéttalikonte kenn ku ci nekk di seetaan kenn ku nekk ni ngay gisee nit ki yenn saay am ku wax dara ci Pape Cheikh xamoo ko yenn saay am ku wax ci man xamoo ma yenn saay nit ne ma baal ma àqde man de xaw ma la woon mm-hmm. Ah? Mm-hmm. parce que nit yàlla rek moo ko xam wala yéen ñii ñu nekkal kenn ku ci nekk xam na diw mi ban façon nit la waaye ki lay séen <laughs> euh, mën na laa bañ a xam waaye télévision waaw mooy kër gu nekk am na ñu leen yaakaar yiir ndu xoolu nit ñi déggal mm-hmm. leen ci seeni soppe mm-hmm. kon nu ngi ñaan yàlla defar suñu mbiri àddina yàlla defar suñu mbiri alaxira ci daraja sa soppe mm-hmm. ah Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam <laughs> euh, defe naa euh, météo bi tey euh, alaaji Babli Mansa ci ginnaaw mën nañu ko lépp rek nit ñi xam nañu <laughs> ñu ngi ci jamonoy tàngoor dama tay ci taxaw bi ak di expliquer marée haute ak marée basse ak di joxe température <laughs> ñu daal Sénégal la ñu ne tàngoor la rek ak ak peexu fajar euh, toog leen seen kër bu ngeen évite bu ngeen éviter ay 47 degré fi mu ne ci taxaw bi ñaadul ma nit damaa sonn dama damaa émission bi 7 heures du matin baalal ma marée haute marée basse lever coucher nga lay Pape tey nag euh, kër Sidi Hadj Malick am naqar bu mag. ah. Euh, ah. Euh, sëñ sàll Sall. sëñ Alioune Sall. bi ci jàmmalaay. gis naa ko ci internet bi nga xam ni Serigne Sidi Ahmed taw Sidi Hadj Malick moo jur yaayam. Ah. moo génnaat na tey. ci fin ci mars bi rek ci biir mars bi. defal naa ko man mi ngañ bàyyi ko doon way. Mm. fii ci jàmmalaay conférence bu mag. macha waaw. cofeel gu ma amoon ci man dafa jéggi dayoo. ko tey sànq ci moo gën a àddina tey ah. ma di ko jaal xalifa mm-hmm. ak njabootu gépp mm-hmm. mm-hmm. ni tey kër El Hadji Malick na dëj bu mag a mag a si Aliou Sall taxawaayam ah. di sëtu Seydi El Hadji Malick fii ci Yoff ci fii ci Yoff waaw mi ngi noonu waaw di ko jaal waa jàmmalaay di ko jaal soxnaam ak njabootam gépp Alaaji Pap dee moom dee la rek mi ngi noonu su temps dafa mel ni dee daa xew ah, dafa xew mais Alaaji dafa yàgg nag mbaa mais Serigne Cheikh maa dégg ci noppam vingt cinq milliards ñu ngi ci biir suuf nee na sept milliards rek ñoo ne ci àdduna bi kii nii mais vingt cinq milliards ñu ngi ci biir suuf ñu tëral leen ñu ñëpp a sept milliards rek lañu waaw yow ñu vérifié àdduna bi réew mu ne douze milliards quatorze millions ñii ñii douze millions ñii quatorze millions ñii cent millions ñii deux cent millions ñu calculer àdduna bi ñu ni kon sept milliards lañu waaye ñu sëriñ Cheikh ni vingt cinq milliards ñu ngi ci biir suuf tëdd te yàlla ne mulukul muuti ñaar ngay def ma dégradé la nga rey ko ërëm jotul ak ërëm passé waaw. oustaz bul ko yéexee te bul ko gaawee. waaw léegi nag moom dafa gaaw moo tax moo tax ku la ameel àq gaawal dem baalu ko gaaw. dëgg koo ameel àq da demal ci moom ne ko baal ma àq. Mhm. waaw. te ñuy bañ problème bi suñu diggante ak yàlla yërmandeem ëpp na mindee fi mhm. mais xam nga ëllëg lu yóbbu nit safara mhm. lu baree baree bari mooy àq gi nga amal nit ñi mhm. waaw soso doomu aadama loolu dañ mala yee dañ koy bind yenn saa yi romb la ne kaay kaay kii amee na la yiw de fay ko ah kii dafa laa jëwoon dafa laa waxal lu bon daf laa ku daf la ku dafa la def nangam ak nangam ak nangam ëllëg yomal xeebalañ pap di nga romb nit mu am montagne yiw nga romb ko montagne yiw ba nekk montagne bàkkaar ndax booy bu ñuy joxe sa yiw ba mu jeex dañuy jël bàkkaaru nit ñi di la jox loolu nag moo tax war na baax ba dee waaw baax nag mooy rafet jikko waaw dee nag moom euh, moom dee moo tax arab yi tuddee ko xalaak maanaam ni mu mettee dafa méttee laaj pap xam nga dee xam nga koo xam ak koo bëgg bu génnee àddina dafay day am luy dañ ci yow ah, ah. ba yow man xiyaam ah, dootoo leen ba yow man xiyaam kon yal na yàlla yërëm ñi génnaat bi ñëpp ci daraje yi Seydina baabu moom itam euh, di Serigne Aliou Sall mi ngi noonu mi mhm. euh, ci Yoff di euh, euh, euh, perte pour umma islamique bi yëpp xam nga da ci am ay kilifa yoo xam ne ni du ñu mën def kanam ci seen i tur mhm. waaye ñu yàgg baax lañu fii ci Sénégal ci fi ñu bokk ci njuddu ak ci seen i xam ak xam-xam ak seen i ñaan ci li ñaan alaaj Pape sëñ Aliou Sall nekk jàmbaar ci kër Seydil Hadji Malick yaay nekk ci diine ji mhm. tey boo demee jàmmalaay gi mu dëkk ak yoof ak yëpp la ko wër mhm. mooy sëñ Aliou sàll jigéen ña fa nekk ñëpp la boole bu amul amul mu kii murid la wala moom daal lislaam bi da koo ñor waaw liggéeyal l'islam moom sëñ Aliou Sall mm-hmm. waaw di leen dajale waaw def daara waaw waaw wut wut ay oustaz yu nga xam ne ñu ngi jàngal jigéen ñi bari ay jigéen yoo xam ne ay mag lañu xamuñu woon dara xam na nañu alquran mën ko euh, ci taxawaayu sëñ Aliou Sall mii mm-hmm. yal na yàlla yokk leeram yal na yàlla yeesal yërmande ci kawam mm-hmm. xam ne l'islam bi tey soxna Sofiyatu mi jur si Sidi Ahmed moo ko jur Sidi Ahmed Sidi El Hadji ko xam nga ni kii Euh, surtout Seydil Hadji Malick direct direct la mhm. euh, di ko ñaan yàlla kawel aljanaam sunu soppe la woon sunu xarit la woon mhm. bari naa lu ma doon toog plateau xew-xew am mhm. moom moo ma koy wax envoyé message daan ma woo jigéen ñu jàmmalaay bi ñu bëggee conférence moom moo leen ni jël leen Pape Hann waaw jël leen Pape Hann euh, defe naa conférence bi mujjee def man mi maa ko def kon yal na yàlla kewel aljana yal na yàlla yokk leeram ci darajey rasulullahi alayhi sallallahu alayhi wa sallam eh, mu ngoog ñu koy eh, ñuy masawu njabootam yëpp eh, ak ay taalibeem ak mm. mbokk yi ñoom Seydi Jamil bu télévision Futur Média sama Maodo moo daan wax araka waaw kay Maodo de araka na siital mawt wal mawtu mawridu oustaz Ndiaye nag moom jàpp yi mu naan jàpp sa nopp baax na moo tax fàtte woo yooyu araka moom quand ça parle la mort rek ñu ne ma sa maam Maodo mooy wax araka waaw ah. araka nee Maodo dafa ni araka nee naa la jàkk yow Pape Hann ah. da lay xëbal waaw naa la jàkk nasiital mawta ngay fàtte fàttalu dee fàtte woo ko de ah. fii kenn fàttewul dee dañ koy fàtte fàttalu rek xaju fi nag déedéet uh-huh. mu ni waaye wal mawtu dee day ñu ne ah mu ni mawridun rootuwaay la falil kulli képp kenn ci yéen mm-hmm. nasibu am nga ci cër min baxaril mamaati ci géejub dee mm-hmm. maanaam kenn ku ci nekk da nga jël sa kaas mm-hmm. tànk ku ne di ci jaar de xam nga ku bañ a dee noo def yàlla yéex bul dudd kullu man alayha fanin wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal lépp ay dem kenn rek moo fiy des mooy borom bi subhanahu wa taala bàyyi nga ni garab yi sax dañuy dee garab yi léppay dee lépp yàlla taxañ suuf si léppay dee li na ci biir géej léppay dee. mulukul mhm. muuti mii rey nit ñi day de kenn rek moo fi des mooy mooy mooy yàlla. Mhm. ñoom dong moo fi des. kon ah ñu nag ñoo ñaan yàlla na yéex. yàlla yéex kay. diw bu deewee ñun yàlla yéex. Mhm. yàlla na yéex moom daal. dee métti na lool waaye kenn bëggu la dem. kenn bëggu la dem yàlla na yéex. yàlla na yéex kay yàlla na yéex kay ba sonn lool la ngay doo xalaat dee wér la ngay bëgg. waaw kon ñi tawat yàlla na wér. après heureusement feebar bokkul dara ak ak ak dee. jotewul loolu dañu koy wax souvent et c'est di nga gis ku feebar bay voilà ba doo am yaakaar ci moom. mu wér mu wér. maanaam feebar ak dee bokkuñu dara gën wér sax ki xamante ni moo moo moo tudd toon te daan daan ko seeti. mais bokkuñu pour na pas que nit ñi di jaaxle. jarul jaaxle. ala ala ala kullu mawludin wa in taala umruhu umruhu sa yadoo daahi hulkatin wa yajibu waaw nee na képp ku nu jur sëg dund gi lu mu gudd gudd gudd gudd malakul mawti dina ñëw xam nga way ko arab boo wax ne allaylu mahma taala laa budda min tulul min tuluil fajri waaye wal umru mahma taala laa budda min min duxuli xabri nee na guddi gi lu mu gudd gudd fajar xar ban heure a jot léegi defe naa minuit léegi mu jot de waaw léegi mu jot 23 heures 22 waaw léegi xaaral tuuti yàlla nañ fi yàlla yàlla nañ fi 5 heures du matin bàyyi mm. léegi 5 heures jot nee gudd gi lu mu gudd gudd fajar xar mm. waaye sa dund gi it lu mu gudd gudd di nga dugg bàmmeel faaw nga dugg bàmmeel sax fi ba keroog moom keroog kenn mënu ko kon bàmmeel nag dafa jar di bàyyi xew jara waajal mhm. xam ni moom itam am na ay tëruwaay yu fa ne sant yaa koy defar nag mhm. yaay defar tëruwaay tëruwaay ba mhm. yaay bu la neexee mbàjj mu nooy di la fa fekk bu la neexee nga am fa tëruwaay bu baax bu la neexee euh, ñoom jànxalaat ñoom jiite ki jaan di la fa wettali yàlla ci man sant dépend ci ni ngay dundee rek waaw ni ngay dundee rek yàlla ne na wama rabbuka bi zallaamin lil abidi man yàlla du ma tooñ sama jaam doo jaamu yàlla def lu baax laabal sa xol li nga yéene El Hadj Pape Cheikh Diallo nga yéene sa bopp. mbaax googu ne ci yow yàlla xam ko ngay dugg bàmmeel di am problème hmm. li yàlla digal nga ci def sa kéemtalaayal kattan ngay dugg bàmmeel di am problème ma tooñ sama jaam dëgg la dëgg la du ma tooñ sama day fay xol day fay xol alaj ba day fay xol day fay xol kon yàlla yàlla nangul nu allahumma amin yàlla jéggal ñu suñu bàkkaar yàlla na ñëpp am jàmm amin yàlla ñëpp am jàmm yàlla bu kenn dem safara allahumma amin waaw yàlla bu kenn am euh, gis mbugul bàmmeel ci biir bàmmeel allahumma amin waaw yàlla ñëpp gudd fan ci darajey rasulullah sallallahu alayhi wa sallam donc Serigne euh, Serigne Alioune Sall Safiatou Euh, soxna Safiatou bu Serigne Sidi Ahmed euh, euh, bu Sidi Aj Malick moo jur taawu Sidi Aj moo jur yaayam. sama papa ak may xamal ni ñoom ñaar ñoo bokkoon benn classe. ca Ndar voilà donc moom itam nee na mu ngi. Mhm. Euh, mu ngi mu ngi mu ngi koy jaal njaboot gi yëpp. Euh, di euh, masawu taalibe yi ak képp koo xam ne rek bokk nga ak moom ñi nga xam ne ni itam ñoo am ay mbokk yi yu yu faatu bon ñu ngi leen di ñaanal tey rek déggaat mhm. nañu am na ku faatuwaat ci Covid bi. waaw mm-hmm. ah, mag ñaa ngi dem rek. 71 mm-hmm. ans la am moom itam euh, sànq la ñu liir euh, communiqué bi sax veut pas dire que <laughs> damay tooñ. Mm-hmm. Euh, nii mag ay dem mais daal lu xaw métti la di lim bu gën di lim bi wéy di yokk ci ñi nga xamante ni ñoo faatu malheureusement ci coronavirus bi muy lu doy waar loo xamante ni ñun xamatuñu sax kenn xamatul loo ciy wax. ah mi ah. noonu ndax bis bu jot muy gën a rëy. bis bu jot muy gën a yaat mm. lii kenn xamul mu doon. balaa bi daal. nitu yàlla yaa ngi ñaan mhm. ñu nit nañuy ñaan yàlla nangul nu suñuy ñaan mhm. nangul nitu yàlla yi seeni ñaan mhm. ba yàlla gaaw arrêté ko fi ci darajey rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ah moom ci biir émission bi la ñu yëg ko àddina euh, euh, ajot ndey sek signature bàjjonu Exidex la en fait euh, moom ak papa yi Exidex ñoo bokk ndey ak baay bàjjan akkanam akkanam la moom itam mu yàgg ñu bégal lool mm. xawoon na tawat nag lu yàgg mm. jot nañu ko defal amal ay euh, émission portée disparue et tout ça. Euh, muy koo xamee ni kenn dootu ko fàtte. Mm. Alioune euh, Diagne Alioune Diagne caméraman Alioune Diagne papaam dafa gaañ bu TFM waaw Alioune Diagne bu TFM moom tam moom tam papaam waajuram bu góor la la ñàkk. la ñàkk waaw moom it ñu ngi koy ñu ngi koy masawu bu baax yàlla baax na. yàlla na bàyyi ñu fi ba ci kanam rek <laughs> c'est compliqué yàlla baax na mu ngoog Mado ñu ngi lay nuyu di la ziar yow itam. <laughs> saa yu ma ñëwee rek ngeen amee mbir mi. ñu waxtaanee wax waxu dee ah du jaas de il ñu waxtaanee ah, ko. ah du jaas waaye day tombeek man rek tubaab fa kàll la eh, ko eh, wakkal bu illa laaxi bu yàlla baax na yàlla baax na. <laughs> maa ngi lay fay Baye Cheikh. mbégte la saa day sekk foofu pare gu ñoog moom il faut ñu teg sax signature am bi woyam bi. waaw Baye Cheikh maa ngi lay ah, nuyu. te li day sekk sol sax dafa nuroo comme hasard ak li sol. wallaay bii rose la wute sama bës a gën a foncé yal na ko yàlla xare àjjana suuf sedd kaw donc ah, euh, maa ngi leen di nuyu di nuyu di ko jox wàccuwaayam. Mm. donc di leen di féliciter. Mm. Euh, ci démb émission bu mag bi ngeen def du ñu ne gulet saa su toujours vous donner le meilleur de vous-même waaye macha allah ñun ñu nekkoon ay téléspectateurs jàngat nañ ci bu baax a baax am ci kii kon nag lépp luñ ko fi waxtaanee ci ci lu baax rek yàlla na ko yàlla wasaare ci mim réew mi nga xamante ne moom moo di Sénégal ndax saa su ne eh, fii nañu yeewoo di nuyu bu baax ñaatam ba corombaar sama xarit ak eh, Mamadou Ndiaye mi nga xamante ne moom moo di sama doomu bopp Baye Cheikh ba ma ko mayee rek ma nuyu sunu yenn yaay yi nga xamante ne saa su ne dañuy yónnee ay bataaxal ah Pape Cheikh nag c'est l'incontournable du jël téléphone <laughs> kilifa bu ñu tudd ci mim réew dañuy wantit Pape ah, Cheikh du jël dee naan président sax dina ko woon mais loolu du exprès gis nga bu ma toppee <laughs> du ma waaj taay du ma toilettu mm-hmm. du ma waaj liggéey si loolu am na vraiment moom loolu donc j'espère que di ngeen di comprendre bu baax a baax donc may mm-hmm. nuyu bu baax ki nga xamante ne moom moo di mm-hmm. euh, sunu waajur bu jigéen di soxna Bali Muntaka nga xamante ne moom moo ñu boole jur ñun ñëpp waaye ki nga xamante ne moom moo di Ajaratu Fat Samb donc chéri imam moom itam saa su ne mi ngi ñi yónnee ay ñaan ak di leen di féliciter imam si c'est pareil kontaan nañ loolu ci ñun ñi nga xamante ne ñun ñoo fi nekk rawatina groupe bi yëpp donc ak sunu yaay ji nga xamante ne moom moo di Safiétou Mountaga Tall moom itam donc ñu koy remercier di ko nuyu maman Khadija Mbacke moom itam euh, di mbokk ndeyu ki nga xamante ne moom moo di sama bàjjen rek Adja Aïda Diong ñu ngi koy jox bu baax wàccuwaayam ak maman Dioma ñoom daal laa bëggoon ziar euh, ci bés bi bay Cheikh. voilà mu ngoog donc ñoom ñu ngi di ndokkeel la ah, suñu ay yaay yoo xamante ni tout le temps dañuy ñaanal euh, def ñi seen i njaboot yàlla na yàlla yàggal seen taxawaay. Adja Fat Samb yaayu seex moom la ñu dégg imam ca Kaolack moom it ñu koy ziar. ziar bu baax euh, soxna Bali Muntaxa Euh, moom kenn dootul euh, werante euh, fii ñu toll ci moom ñu ngi koy ziar bu baax ak képp koo xam ni rek defe naa sa cofeel ci ñun dafa yaatu donc ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm bu baax ñi àndoon ak Adja Dégène Chimère bokk na ci mama Kinouska Ajotu ne Ndaw mm-hmm. ca Mbour mm-hmm. jigéenu El Hadj Ndaw excellence consul ba ca Amérique moom ñu ngi koy ndokkeel bu baax mm-hmm. ak ki nga xam ni mooy Birabar ma tëgg Fatou Seck Mamband Ajotu Ngoma Thiam xam ne boo xoolee Ngoma Thiam rek dégg ngeen chimère ngay gis Adja Ngoma Thiam moom it ñu ngi koy ndokkeel bu baax mm-hmm. Tata Fambow ca New York moo àndoon ak Adja dégg ngeen mm-hmm. euh, njabootam yëpp daal euh, vraiment euh, ñu ngi leen di wax ni desewu leen nag ndaw mu jooy yàlla na yàlla yàlla yàggal seen taxawaay bonjour mm-hmm. <laughs> bonjour Pape Cheikh maa ngi leen di bu baax nuyu ñu ma bokkal plateau bi Mado ñaatam euh, Oustaz Pape Anne ak Mamadou Ndiaye euh, nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñuy seetaan un peu partout à travers le monde euh, ci quartier général ziar leen yéen ñëpp tam ziaraat ñëpp ci quartier général bu mag bi nga xamante ni am na fi démb ba tey nit ñi nekk ak seen mbégte li ma sama benn xarit ne ma sànq waxal Pape Cheikh maa ngi soog a gis nit yi émission ba yeewu ay nit di may ay nit ay xaalis naa leen àddiya sëñ Touba mm-hmm. kenn masul gis lu mel noonu. waaw kay bi bi ma yeewoo ma gisaat la ci télé bi bi may génn maa ngi la bàyyi ngay wax ci télé bi <laughs> liggéey rek ma ne ko yow te nga ma bàyyi yéen yàgg France <laughs> la xam nga fan la fekk baax mbadaxun wallaay moom mi xamul fi mbadaxun mbii da di bàyyam lan mbii da la bàyyam tudd la wax mooy ah, ah, man bi may tëdd maa ngi zappé du yi xam nga loolu xam nga ñoom noonu la ñuy waxee man du ma ànd Sénégal du ma seetaan télé Sénégal mais eh. bi may tëdd xaw naa zappé tuuti maa ngi lay gis bi ma yeewoo ma gisaat la. yow tu fonctionnes comme ça. ko ay yow yow kii Chantal Goya bàyyi ma yéen yàgg France yi ma. ah yow man damaa sori ci waa yàgg France yi yow nuyoo ba seen xel yi dem. waaye carte générale bi jamono bi Alaaji Mbiida Faalaye baayam. Mbiida Mbiida la baayam tudd. waaye quartier général bi jaroon na ko bàyyi kon nag mi ngi noonu ñëpp euh, kontaan nañ di ñaan yàlla dëgëral euh, taxawaay bi. mais dañuy yàgg France ba duñu bëggati seeni tur ay Marie Laure la bëgg a tudd fekk ay Ndiogu lañ leen tuddee Demba. ak ma faal. Juliette. ci kanam tuuti bàyyi dinañ waxtaanee. dinañ waxtaanee taxawaayu GP yi parce que ñoom tamit fi mu toll ni euh, pandémie bi sonal na leen trop te euh, dañu bokk ci impacte yi mais mel na ni euh, kenn jëlu leen trop en compte ci yëf yi donc nag ñoom bu ñu sañoon itamit kilifa yi xalaat leen parce que ñoom dañu bokk ci secteur yi nga xamante ni xëj na lii daanaka feebar bi ñoom lay ñoom ah lay gën a laal. des voilà c'est est-ce que sax nekkuñu les plus ah grands ah ñoo mag ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu tourisme ak wàllu hôtellerie ak yu mel noonu mais tey dinañu waxtaane GPI ci kanam tuuti voilà donc tey dañuy tourisme bi on en parle demain ou lundi hôtellerie euh, c'est demain voilà parce que ñoom itam c'est des c'est des impactés il y a tellement de personnes qui sont touchées euh, euh, par cette pandémie yàlla baax na ñun li ñu mën rek mooy wax ak sensibiliser donc on va parler de cette situation des GP muy lu metti mais yàlla baax na ñaatam sekk ngi fi ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Baye Cheikh di ziar ñi ma bokkal plateau bi waaye tamit euh, di nuyu téléspectateurs yi nga xamante ne ñooy toog saa su ne di xaar émission bu mag bi de di euh, quartier général. Euh, comme ni ñu koy defee rek dellusiwaat naa tey ci dimanche yi waaye Baye Cheikh di sant di sargal bu baax a baax ñëpp ñi nga xamante ne ñooy équipe bi ngeen àndaloon démb. Ah, félicité leen sonal naa trop Mamadou Ndiaye démb. ak ay message waaw lu ma jot rek yónnee ko. dañu dem ba nga xam si benn téléphone bu ndaw. teg ko ci kaw table ji ñu amul woon télévision sax dañu jël seen téléphone ci tailleur yéeg ñëpp. macha allah ñuy wax ni rek seen mbégte rek la ñuy euh, dab saa sune ne mm-hmm. euh, Baye yàlla nañu yàlla may euh, maanaam kattan gi may ñuy yokku moom mi nga xamante ne mooy Baye Cheikh yàlla defal ko jàmm ba muy gën di yokku sax ndax bu yokkoo ñëpp mm-hmm. yokku kon macha allah Baye dellu siwaat nañ nag tey mm-hmm. di sant bu baax a baax ñi nga xamante ni ñoom ñooy dimbalaate maanaam nit ñi nga xamante ne dañu social boobu sax li nga xamante ne mooy pandémie bi ñëwagul euh, ci ñooñu nag la ñu tànn kenn di Habib Niang fekk ko cees mu defal laago ñi am laago euh, <laughs> maanaam defal leen naa fa sama rakk ji keroog waaye mhm. récupéré naa yónnent bi dootuma ko fi yónnee ndax dafa sew déedéet waaye yow mii dem chaque jour Habib dafa baax waaw dafa baax waaw waaw. zone Diallo yebal ma bu ci ñaaw nag. démb ñu ngi jot yóbbante Abdoulaye Bibi Baldé bu poste. Euh, waaye également Baye Cheikh yóbbante ki nga xamante ne ñooy waa Eurogerm. Hmm. di Amadou Seck ñoom ñëpp ku ci nekk rek di ay nit yoo xamante ne dañuy dimbali. Hmm. waaye comme ni nga ko waxee rek euh, kooku ni nga tudd léegi euh, dañoo dem ba Thiès fekk ko à l'œuvre mu dem ci centre de formation boo xamante ne ay suur ñoo fa nekk andil leen dimbal waaye tamit demaat ci beneen centre nekk ci ay chaise roulante ñoo fa nekk mu indil leen ndimbal ñu tànn loolu yëpp nag indil leen ko tey ci seen émission décomplexé ci quartier général. voilà euh, mm-hmm. euh, euh, li ñu tuddee ma jàpp c'est très important. dëgg la boo wonee Habib daañu ñëwaat itam ci yeneen i initiative yoo ah. xamante ni ay sénégalais nga koy def. dëgg la nañu ko Mado d'ailleurs. oui on fera dinañu def benn point pour wax ci mm-hmm. ñi ñi xam am na yu ñu mm-hmm. yëgul nag. bu ngeen ñu ko mënee yëgal. ñun ñu jàllale ko ce sera gratuit parce que yéen it ngeen li ngeen def xaaru ci dara. Mm-hmm. Euh, ñu nit euh, on parlera de ces initiatives là donc dinañu découvrir li nga mm-hmm. xamante ni ñaatam euh, sekk dem na defal ñu ko. Mamadou mm-hmm. Ndiaye internet bi kenn nelawul démb ba tey ba tey ñu ngi dundaat émotion bi nga xamante ni moom la ñu am démb ci quartier général bi. noonu la demee Pape Cheikh maa ngi lay nuyu di nuyu téléspectateur di nuyu mbokk internautes yi di nuyu ñi nga bokkal foofu plateau jiite ci nuyo bi El Hadj Pape di nuyu Mama Mado ak ñaatam ak Corok di nuyu aussi ñi nga xamante ni ñoo ñu doon suivre. depuis démb tey réaction yi dafa ñëw continuer ci lendemain bi nga xam mën nañu jàppee. prolongation mbégte bi prolongation lañ doon lañ doon laaj. mais ci man damaa mujjee waaru sax. <laughs> ci toile bi de moom prolongation <laughs> amoon na moom. ndaxte vraiment boo gisee du comme ni ñu koy waxee rek du outil de sondage bi nga xam ne dañ koy def ci internet bi du sondage bu fiable mais en tout cas di remercier internautes yi ndax déjà plus de 40 000 internautes wala ñoo xam ne dañ doon suivre euh, quartier général démb ci YouTube bi bariwul li muy am démb euh, gis nañ ko ci en temps réel réseaux sociaux yi nga xamante ni ñi ngi ci muy Facebook Twitter ak Instagram bu ci nekk live bi da doon jàll en temps réel. Euh, am sax musul musul am musul am mais euh, toujours dañuy dañuy wax rek comme comme na wax ji leer waaw na musul ah, am da nga naan musul am musul musul musul am ci histoire u yoo xamante ni boo weexee dunk <laughs> euh, bu la dalee da koy wax mu leer ñëpp dégg waaw da nga naan musul am waaw mbégte la lu xonk dafa war a xonk loolu waaw ah. loolu mbégte la loolu mbégte la xonk xonk moom ci ci tooy la yam ñuul ci lu mu yam ñu kukk weex nag taal kay war na leer na leer <laughs> ay yar yooyu noonu timidité non vraiment ñu ngi gërëm téléspectateurs yi déedéet tollatuñu foofu. non humidité rek ngay toog naan ñooy premier. non non man damaa bëgg yooyu. <laughs> non humidité rek. humidité <laughs> fan. humidité xew xam nga kañ la xew yi. Euh. yow bii la bi ñu lay toppandoo yow ah dëgg la. da ngay bàyyi humidité teg ko fële da nga naan. waaw affaire bi dafa xonk cooy. da nga koy wax ñu lay tontu. waaw yaa kon bàyyi ñu xonkal ko cooy rek comme ni nga ko waxee en tout cas musul euh, am ci ci ci ci ci bi nga xamante ni dajale na lu toll 40 000 personnes. Ah, ci YouTube rek ah ci ndaxte bariwul ci réseaux sociaux yeneen réseaux sociaux yi bokk ci muy Facebook Twitter ak Instagram bi nga xamante ni bari na ci aussi ay live plus de 8000 wala euh, personnes yoo xam ne ku ci nekk ñu ngi doon scotché 3 heures du matin à 3 heures du matin surtout heure boobu heure boobu tamit c'est bien bon à ah. préciser parce que dafa am solo ci heure yooyu nga xamante ne dafa nekk heure yi d'habitude nit ñi dañuy tëdd wala noppalu mais fii kenn kenn kenn tëddul ñëpp ngi doon toog di suivre li nga xamante ne mooy euh, quartier général nekk na lu am solo encore une fois di leen félicité yéen di mais di féliciter ñoom tamit ñoom ñi nga xamante ne intérêt bi nga xam ne jox nañ ko euh, télévision Futurs Médias mais surtout euh, quartier mu nekk lu am solo di con fas yéene continuer di leen gunge ba koor gi jeex incha allah en tout cas fas yéene wu ñu fii naan fas yéene nañ ko continuer ci loolu moo tax euh, ñoom tamit internet yi hashtag bi QGTFM 2020 la Pape Cheikh mais aussi xam naa ni euh, El Hadj Mamadou Mbaye Garmi internet yi ñoom tamit comme ni nga ko doon waxee xale yi ñi ngi ko doon tooñ mais tamit toujours euh, boo gisee waa Amérique bu ñu dee def bu ñu dee tooñ Trump. Mhm. danga naan ñi dañoo yabaate. Mhm. boo gisee waa France bu ñu dee tooñ. seen Macron xaw ma nu mu seen président bi. <laughs> danga naan ñi yi dañoo yab seen président donc c'est partout. c'est loolu day wane ni gars yi ñu ngi ñu ngi suivre bu baax. et puis bàyyi xel bu baax euh, émission bi loolu nekk na lu am solo. Euh, di wax ni tamit loolu dafa ak internet dafa ànd. dafa dafa dafa ànd ci jamono ji ñu toll nii surtout ci Sénégal léegi nag li ci mën a wax rek mooy euh, internet yu bari internet bari nañu du war du woon rek Sénégal partout dans le monde la fépp fu Sénégalais nekk ba Brésil ba Argentine ñu ngi doon connecté wu di suivre li nga xamante ni moo xew fii ci quartier général di wax nag nag ne encore une fois dafa seen na continuer di leen bëggal Pape mu ngoog euh, mm. merci euh, Mamadou Ndiaye 23h38 euh, te ñu ngi doog a tàmbali am na ay surprise yu ñu leen di proposé fii ci kanam en attendant ibbi nañu téléphone bi ku dugg rek ñu jox ko ndimbalam ay enveloppe bu 100000 yi am na yu des démb sax heureusement ah, xam nga nga feetu. ay ngénteeg yooyu <laughs> le lekk bi des dara dàqul loolu loolu moo ñu dal nii tey yi ñu fi yoroon daal ci ay enveloppe dafa bëri woon a ba nga xamee ni joxe nañu démb gaa waaye dafa des tey donc ce qui que tey itam euh, dañuy prolongation promotion bi ñu leen proposé démb tey itam dañuy promotion ku dugg mën naa maye deux cent mille mën naa maye cent mille teg ci dara am na machine à coudre yu ñu proposé woon pour maye ko démb euh, benn bi suñu xarit euh, bi nekk kër aram jàppale ji nit ku baax ki libaas moo ko maye bi ci des ministre Dame Diop formation professionnelle artisanat ak ak ak emploi moom moo ko mayee donc ñaari machine yoo xamante ni jigéen bu dugg léegi nii euh, mën nañu la ko may donc machine bii du masque rek la mën defar euh, mën nga ci euh, liggéey ah di ñaw xam nga yii lañ daan jox su suñu yaay yi ah, seeni nopp premier cadeau yi <laughs> à l'époque ah machine loxo lañ daan joxe ma ne sama yaay amoon na ci ñun bu ñu bu suñu tubee xotteeku wan foo xotteeku ci tax nga marque bi CGR la woon sama yaay dëkk Thiès côté Kër mbay CGR ay eh, waay bëgguma leen nettal nit yooyu noonu ay xale ngeen ay sama yaay yàlla na gudd fan amiin moom lañ daan coudre kii rek ah, waaw bu yëre xottee ko doo yóbbu ah boobu kenn sañ joxe woon je te jure mais ndey lañ may nettali moom premier machine u bi mu amoon daa organisé woon fet këram je te jure yaayu Youssou dara dara ñëw waaw biñ ko premier machine CGR biñ ko offrir ndey sonn mbuub da doon dafa organisé fête ci kër gi. invité copine am yëpp. mbootaay bi yëpp ñëw pour ñu célébrer machine bi. wallaay moom magnétophone a yàpp. kuñ ko mës a jox premier cadeau. organisé nga fekk juróo juróo judd fekk fa sama yaay ak machine am muy muy muy coudre. magnétophone ak machine à coudre. Hmm. Ah. <laughs> te seen band yëpp du ñu dégloo yu Sénégal ay Mamouri Jimbiri la ñuy déglu <laughs> yow li ma xamal mag ñi dafa bëri Mamouri Jimbiri xale yi xamuñu ko. mu ne Mamouri Jimbiri déedéet yow xëy na ñax na xëy na nag ñaata mën nañoo xam xam nga xale yi xamuñu Karbala a xamuñu Karbala xamuñu maam moo di ci ñu bàyyi ma ci dégg Mbaye Ndiaye xam yow <laughs> buuba daf maa a nettali na bande maam moo bi bu yaayam la jël. enregistré ci ay woyu américain <laughs> waaye dañ ko génn kër gi <laughs> man sama yaay daal boole Mamoudou Jimbiri euh, ki dëkk bi nu mu tudd woykat bi ki woyoon rajo Kanka ay waay xale ngeen. oh sama xarit la nag ndeysaan. Eh, ay waay xel day eh, fàttali waay woykat bu mag bi waay. appel bi wallaay woy na yaay jaame woy ñëpp. waaw moo woyoon rajo Kara rajo Kanka ay waay ñaatam eh, jàppale ko nag. <laughs> Ah, ah. Jaliba Kouyaté Jaliba Kouyaté yenn saa yi nag nga gis maire bu ci xaw a silbissé am tuuti ay wayu France am ay Enrico Macias ci ay bande ah oui pour toutes ces raisons je t'aime ah donc bande ak machine à coudre mooy bande yu njëkk waaw mooy ka moom mooy euh, cadeau yu njëkk mooy kase di daan am fii li daan joxe da ngay def nii ak kii bi waaw loolu mais loolu ñun ñëpp mais jamono dox na walaay jamono dox na ah du boobu jamono dox na am fii léegi léegi léegi jamono dafa soppeeku xamoo ko xale nga. <laughs> xale la kay ay tam wa dëhru fii taxayyurun wa taqallub waaw si naalu nee na jamono. nekk na ci jamono soppiku ak wëlbatiku. xool ba nga koy wax am na junni at ak topp. te au fur et à mesure fu ñuy dem rek jamono day soppi. wa dëhru fii xam nga xale yi ku leen tegal ku leen tegal Bemba yaa jaas. ñu dem ah, xale yi ah, xamuñu ah, Bemba yaa jaas sax. waaw donc amoori jimbiri yii dafa yàgg. waaw kii mooy Jali Ba Kuyaate donc band yi. la la la ñu daan déglu ak suñu yaay rajo Kankan moo nekk noonu. ndeysaan Jaliba Kouyaté suma xarit la nag actuellement d'ailleurs mu ngi seetaan depuis Mali depuis Gambie ah euh, tout le temps dafay jokkoo ak ñun ñu ah, sang la moom dafa la bëgg nag alaaj ba. macha allah loolu moom maa ngi lay jotal yóbbanteem ak. macha allah macha allah. maître Serif Tambidou ak ministre ah, Ba Tambidou allah. waaw ah, Maya Dia Abi Ndiaye ñoom ñu la sopp lañu. macha allah Serif ma nee bu muy def te seeraanu ma ma bërki démb. ne ma neel pap nag sañ seem yi kontaan naa ci. nit ku baax nit ku la <laughs> waaw ku baax la moom euh, ñu ngi koy gërëm bu euh, baax a baax a baax. léegi defe naa mën nañu euh, tàmbali ak woote yi bu ko defee ku dugg rek ñu am lu ñu la dimbalee et puis dem ak sujet bi nga xamante ni ma do préparé nga ko ba tey ci initiative yi. waaw ci initiative yi Baye Cheikh comme ni nga ko waxee rek jotoon nañ dem fi nga xamante ne moom moo di Thiès ñu rencontré nag ay jeunes responsables yoo xamante dañu organiser plateforme boo xamante ne liñ ciy def yëpp parfois moom moo di maanaam ay social ak yooyu ba tax na tey defoon nañ ay kit yóbbu ko fi nga xamante ne moom moo di hôpitalu régional bu Thiès parce que ñu bare xam nañ ni ko foofu il y a des malades des malades du Covid am na ñeneen ñoo xamante ne aussi beneen jàngoro moo leen fa dal comme frontière yi dafa tëjee kenn mënul dem ak dikk bi dafa xaw a compliqué euh, donc am na ay xale yu am jom yu fa nekk nga xamante ne Cheikh Mbacke euh, Seck moom moo ko sookee euh, defal leen ay kit xam naa saa ñu peree rek ñu teg ko bàyyi Cheikh. kon ñu dem santaat yàlla bu baax a baax maye tey euh, ñu ñëw fii hôpital régional Thiès donc war fi indi benn don euh, don bi nag ñu destiné ko ñi nga xam ne euh, ñooy malaatu Covid 19 yi. nga xam ne internet lañ leen fii à l'hôpital régional de Thiès ci kaw loolu ci la plateforme vision Thiès waa daje bokk yenn yenn conviction yi bokk yenn principe yi comme période boo xam ne ni dafa laaj solidarité mais également mu am les réalités du corona donc doonaat beneen pois boo xam ne dafa ñëw dolleeku ci ci ci li xew le maire Talla Sylla mu ngi def ay jéego par rapport ak daara yi mais nañu xalaat ne am na ay impacté yoo xam ne dañoo tawatoon avant ñuy décréter euh, transport interurbain am ay malades fii à donc ñoom coupé nañ seen lien ak seeni i mbokk mënatuñoo dem doon fi ñoo xam ne dañoo vulnérable amuñu fi mbokk amuñu fi kër amuñu fi dara ci la ñu xalaat ñun à notre niveau donc indi fi don bi ngir jàppale leen ko di ay kitu ndogu donc jox leen ko au nom des jeunes leaders thiessois di woo lancer appel tous les autorités di leen wax ne à l'hôpital am na fi ñoo xam ne du ñu ay malaatu corona donc feebar yi daan dal nit ñi moo leen dal ñu nekk fii à l'hôpital donc mënatuñoo dellu seen dëkk yi ngir tëj nañ fépp donc ñu ñëw fii dooleel leen dina am solo. en tout cas ñu ngi sant la personnel médical. di leen wax ne ñun ñu ngi leen di ñaanal. yàlla leen yàlla sàmm yàlla aar leen corona bi suñu borom génn ko fii génn ko ci mboolem réewi àdduna. ñu delluwaat di jaajëfal vision thiessoise ñi nga xamante ne tey dañoo ñëw jàppale ñu ci lutte contre la Covid 19 waaw. service social bi fi nekk nii ñu ngi recevoir don bi te su neexee yàlla daañ ko remonté ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy njiit yi di kilifa yi waaw di dellu di leen jaajëfal te képp koo xamante ni def nga ci sa doole di ñaan yàlla loo mën ren nga mën lu ko ëpp yeneen at yi yàlla yokk leen ci lépp te ñaan yàlla aussi feebar bi yam fi te bépp malade boo xam mu ngi fi nekk ñu ñaan yàlla mu wér ak jàmm ba delluwaat ci njabootam Euh, voilà donc journée de solidarité hôpital bu Thiès. Mhm. avec euh, euh, des jeunes responsables yu nekk foofu. initiative yu am mhm. solo la ma doon. oui Baye comme ni nga ko gisee rek waa vision thiessoise nga xamante ne ki ko sooke c'est un jeune caméraman buy wuyu ci turu Serigne Mbacke Seck moom moo wax lu ne mel comme gis nañu que ñu bare ñi ngi jàpp di dimbali nit yi comme maire waaye comme ni ñu koy waxee toujours état bi du moom moo mën a def lépp léeg-léeg ci goxe di gis des jeunes yoo xamante ne c'est des responsables léeg du ñu xaar li nga xamante ne moom moo di état. dañuy jël seen am amu bopp dem seeti ñi nga xamante ne dañ ko yelloo rawatina nag fi ñu ko defee fi nga xamante ne moom moo di hôpital régional euh, bii di Thiès parce que comme ni niñ ko xamee am na ay malade du Covid yoo xamante ne dañ leen di fa denc te am na ñenn ñoo xamante ne comme niñ koy waxee ce ne sont même pas euh, des malades li tombeek sax ñoom ñu gën a dem di leen di dimbali parce que am na ñenn ñoo xamante ne dañuy jóge fu euh, ay daara jolof ak yooyu léegi comme tëj nañ li nga xamante ne moom moo di yoon beeg dem beeg dikk bi am na ñoo xamante ne dañ fa nekk te amuñu benn mbokk amuñu ku leen dimbali ñoom bi ñu gëstoo ba waxtaan ak ñi nga xamante ne moom moo di ces yi fa nekk ñu ne xaaral pourquoi pas ñu dem dimbali ñi nga xamante ne amee nañ Covid mais ces personnes là fa te yàlla dogal tamit euh, jàngoro boobu fekk leen de la pédiatrie dimbali ñi nga ne ñoo di euh, xale yooyu li ci am aussi mooy encourager euh, maanaam li nga ne moom moo di médecins yi fa nekk parce que gis nañu engagement corps médical médical bi nu mu amee xoolal la dernière fois on a vu le ministre euh, de la santé ndeysaan mu dem bett fi nga xamante ne moom moo di euh, waa euh, hôpital bi nga xamante ne moom moo nekkee fee ca Fann dem encourager ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, muyee lii di euh, seen ay blouse pour dimbale doomu aadama yi te dégg nañ ci bare ñoom ci ñoom am na ñu ñoo xamante ne ñoom itam jàngoro bi dal na leen donc ñu ngi leen di massawu di leen di encourager euh, di féliciter ces jeunes yi nga xamante ne tooguñu rek ca koñ ba di xoole wala di kaas di xaar mais ñi ngi jël ak seen asaka yéene di jóg di dimbali ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko soxla maanaam néew ju doole ji wala ñi nga xamante ne peut-être ils ont besoin de cette aide mais comme ni ma ko waxee rek di féliciter quand même ce jeune caméraman bi nga xamante ne euh, moom moo ko sookee di Cheikh euh, nu mu tuddati sax Serigne Mbacke Seck sama doom la mais vraiment maa ngi koy féliciter parce que tam bi noble na Baye Cheikh. bravo en tout cas initiative yu am solo. Mm-hmm. yoo xamante ñoo ngi koy rafetlu foofu ca Thiès a ba ba gis ay nit yoo xam ne ni euh, ñu ngi ci jàppal ma jàpp gi mais di jàppale ay nit yoo xam ne ni dañoo amee laago. dëgg la fii Mado euh, waaj daanelee rek foofu laay commencer. Euh, parce que am na ñoo xamante ni peut-être ràññewuñu leen xamuñu leen mais am na ñoo xamante ni dañoo am ay ndomba tànk nekk ay kilifa ñoom itamit ñu ngi bay seen waar bu baax a baax ci jàppal ma jàpp jooju nga wax waaye Papa Mbaye Sanger mi ngi lay nuyu ak ta koña euh, ma nga ca France di rakkam ñu bokk ndey ak baay nee nañ kontaan nañ ci yow kon nañ jëm Thiès fekk fa équipe bu Habib Niang ñu dellu siwaat asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu euh, téléspectateurs yépp di nuyu ñi bi di nuyu sama militant yi. Euh, musiba bi xam ne maanaam moom moo ñu dama mbas bi bu mu amee Sénégal ba léegi yaakaar naa ne ñëpp woon nañ ci teg nañ seen bët. metti na lool nag mais ñu ngi sant yàlla si motaal di yàlla yàlla fi yàlla jëlee ñu ngi dee depuis mu amee ba léegi nelawtuñ guddeetuñ bëccëg ni ngi si def ay action sociale di jàppale askan bi récemment rek boo xoolee ñu ngi woon euh, au niveau de notre zone mooy la zone nord jox na fi pratiquement mu treize tonnes de jàppale si askan bi seen famille parce que métti na lool beneen bi aussi tamit yaakaar naa ñëpp dañ fii nga xam ne maanaam bu fa laa liggéey mooy géejuwaay yaakaar naa jox nañ ko ma 5 tonnes jàppale askan bi ni ko aussi def feneen tam di ko def di remercier aussi si yi yoo xam ne maanaam yépp ñu def ñu ci dugal sa loxo bu baax a baax di sant ñëpp nekk nit da nga waroon nekk ak askan bi parce que bi ñëw yow day ñoo marti devait être présent sur le terrain ñu ngi ñaan yàlla yàlla fi yàlla jëlee bi tamit am na ñeen nga xam ne yaakaar naa waruñu leen fàtte fàttuma leen sax yaakaar naa ñoom sama xam ne fàttuma leen mooy naaw yu doole yi te yaakaar naa ne keroog leen suudu muré yi seen bopp dem naa seeti leen seen école amoon na ay matériel ay imprimante ay ordinateur ay outils yu xam ne maanaam ñëpp jàppale naa leen parce que loolu dañuy def ay fodde maa leen jàppale te remercier en passant kii nga xam ne maanaam moom moo initiative ma faal faal maa koy remercier baax mu doon aussi tamit kenn xam ne sama membre groupement mouvement bi la bokk jàppale naa leen bu baax a baax beneen bu seen mooy leen handicapés moteurs yi tamit boo xoolee fàtt ñu leen parce que aussi ñu jar a jàppale nañu te seen centre de formation bi nekk Parcelles Assainies euh, def naa fa ay dons yu bëri euh, boo xoolee ay imprimante may naa leen ay béquet may naa leen ay matériels yu bëri bëri donc pour lan que ñoom aussi ñu am di fi ñoom ñu wax ne ay jom nañu am jom dañ nga xam ne rek dama doon un mouvement bu xam moom laa nekk mooy Thiès mais nag yaakaar naa ñëpp xam nañ ko mouvement bi nag c'est un mouvement national je dirais même international même au niveau de la diaspora am nañ ay militants yoo xam ne tey yëpp lu may def rek du ma leen wax sax ñoom seen bopp ñoo ñoom ñoo ñu yónnee seen aide pour ñu def ko ci askan bi yaakaar naa ñun duñu waxtu ñëpp population bi xam nañu suñu présence sur le terrain présence toujours physique c'est important à présence morale ak accompagner population bi ñii nga xam ne maanaam ñoom ñooy les soudemiers yaakaar naa ne ñu jël lu mot presque lu mot téeméeru carnet mutuelle de santé jox leen ko jàppale leen si pour lan pour ñu mën a nekk ñëpp yaakaar naa yépp c'est pour apprendre pour répondre à l'appel du président Macky Sall président bu muy jël euh, pouvoir bi yaakaar naa ne am na lu mu wax dafa ne il est là pour combattre l'inégalité ñun c'est dans ce sens que ñu jóg di ko accompagner pour wax ni que suñu mbokk yi xam ne yàlla dafa wàññi leen ñu ak ñoom guddi ba tëg fan yi nag ñu néew néew incha allah dinañ am benn aide bu am doole boo xam ne dañ ko defalaat encore suñu mbokk yi nga xam ne maanaam si néew doole yi mooy les handicapés dinañ leen jàppale bu baax ñoom xam nañ que Habib Niang ñi mu àndal seetuñu leen seetaanu leen guddi seetaanu leen bëccëg jërëjëf voilà donc Habib Niang la ñaatam fekki woon Thiès doomi Thiès la waaye Dakar mm-hmm. itam mu ngi fiy def lu baax mm-hmm. euh, moo yore mouvement ànd suqali Sénégal dëgg la ànd ba suqali Sénégal googu nag yemale ko rek Dakar yemale ko fépp ci àdduna da ko si Sénégal da koy def waaye tamit ñun demoon nañu fekk ci ko diwaanu cees mu dem ci benn centre de formation boo xamante ne mi ngi nekk Escale centre de formation boobu ay suur ñoo fa nekk euh, ñi ngi ko tijji nag depuis 2010 mu nekk centre de formation boobu xale yi dañ fay jàng euh, maintenance bureautique waaye tamit informatique ak centre boo xamante ni ay ñoo euh, maanaam ñiy dund ak laago dañu fa nekk waaye ay jigéen lañu de ay handicapé ñoom dañuy jàng coiffure dañuy def maquillage loolu yëpp dañu koy jàng mu dem fa yóbbul leen matériel bi nga xamante ne moom la ñu soxla euh, yaakaar naa ne nit nga am waaye tamit yàlla jox la ay ndomba tànk mm. tey jii bu toogee wax li mu wax ñoom ci seen bopp fa ñu nekk waaye laago yi dinañ xam ne fàttewuñu leen ci askan wi la bokk donc loolu euh, maanaam exprès la pour ñu génne ko tey pour wax teg ni am na ñu bëri ñoo xamante ne dañuy def comme Habib Niang euh, mii nga xamante ni moom nit ñi xam nañ ko ràññee dem sax ba tuddee ko l'homme social bëri nañu ci dëkk bi yëg nañu yu bëri également ñi ngi koy def di fàttali rek ni euh, Sénégal fi ñu toll jamono ji metti na ci ñenn ñi am na ñoo xamante ne ñi ngi koy jooy ba ñu yëg ko am na ñoo xamante ne également ñu ngi ci seen biiri kër ñoo nag yaakaar naa ni gëm yàlla rek ak bëgg mën mën a mën a dimbali te yàlla tax fekk leen ba fa ñu nekk jox leen yaakaar naa ni loolu rek nga ci nga ci nga ci mën a mm-hmm. def ngir jàmm si yàlla donc ñu ngi koy encouragé moom ak équipe am yëpp di wax rek ni am na entreprise yu bëri yoo xamante ne woo nañ ñu mm-hmm. euh, ñu ànd ak ñoom dem def comme lii mu def incha allah loolu aussi dañ ciy kontaan te même bu dee quartier général jeex na loolu dinañ fexe comme ni ko Pape Cheikh waxee léegi génne ko ba askan wi yëpp euh, gis ko di ñaan nag mbas bi jóge fi euh, di ñaan également képp koo xamante ne yaa ngi amee laago te yàlla def euh, jamono ji sa liggéey yàqu ñu lay ñaanal bu baax a baax yàlla na yàlla defaraat lépp ba ñu dellu ku ci nekk ci la nga nekkoon Baye Cheikh voilà def lu baax yaa oustaz baax na mais xam fa nga koy tàbbal moo gën xam ah, nga xam fan koy tabal ah, koy tabal c'est important. important xam fan ah. koy tabal <coughs> jox ko ki ko yeyoo. Mm. azaka sax boo koy génnee yàlla dafa am ñu ñu mu wax ni ñoom nga ko war a jox. moom azaka. kon borom bi subhanahu wa taala ni mu bindee jaam ñi yamalewul moom yàlla ñi am wax na leen ni ñii ngeen ko war a jox waaw ñii ngeen war a jox mooy na ko jox faqiir mm-hmm. waaw am na koo xam ni am na am na am na am na am na ndékki mais amul añ. dëgg am na koo xam ni am na añ mais amul ndékki waaw am na koo xam ni amul dara. am na koo xam ni moom amul añ amul reer amul ndékki dëgg la bu génnee da koy wut waaw da koy yalwaani mhm. kon ñooñu dañ leen war a taxawu mhm. war yàlla leen leen lu nekk yàlla dafa am nu mu ko tracé mhm. yàllaa bindee noonu ci bëgg ci xam moom yàlla bind gi mu bind doomu aadama yi gën leen a xam seen bopp waaw kenn ku ci nekk yàllaa la gën a xam sa bopp waaw kenn moo kenn ku ci nekk ni la yàlla bindee sante ko borom bi subhanahu wa taala dafa séddale rek moom dafa séddale te yàllay séddale du mu ko neexee alaaj pap yenn saay nga romb koo xam ni alaaj pap euh, li ko yàlla jox ci wërsëg. Mm-hmm. yow yow yow amoo benn bekk suukar boo mën a jënd. Mm-hmm. moom bu nu ko waxoon ni yaa kii weccoo leen wér gi kii am ñu jox la ko yow nga jox ko alal la mu d'accord. dëgg la ma na dégg mm-hmm. am na koo xam ni yaa ngi koy tiim di ko ñee. fekk moom ni mu mel. am na lu mu metti ci moom loo xam ni bañoon na yor dara moo ko gënal. dëgg la am na ko yor dara di ci sant borom bi subhaanahu wa taala wér mm. waaye di jaamu yàlla ci alalam ba ñi ko fi xam fi mu ko war a dugal. xaw ma di nga moom de. dëgg la mm. xam na moom li ko yàlla sant ak li ko yàlla jox. xam ni bu ko benn alal bi bu ko yàlla bu la ko yàlla joxloo dalaa séddaleloo mm-hmm. yàlla du wàcc di yëkkati 1000 francs jox alaj papa yëkkati 500 jox ma yëkkati kee jox nangam ak nangam du ko def da koy jox nit ñi mm-hmm. yàlla de nit ñi jox leen nit ñi mm-hmm. ah dégg nga. Mm. yàlla nit ñi comme la laaj Pape wax léegi mais xam fi ngay def. xam li ngay def xam fi nga koy dugal ko gën. Mm-hmm. xam fi nga koy dugal ko gën. moo tax léegi li bari nag mooy ñi am ñi am la ñuy dimbali. te mm-hmm. mm-hmm. loolu amul sens. ñi am. ñi am la ñuy dimbali. ñi amul kenn dimbaliwu leen. gis nga boo xoolee koo xam ne amul. yow nga yor lu baree baree bari mais woo ko nga jox ko départ. mais su ma la joxoon temps ndax di nga. mais am na koo xam ne boo ko joxee 10 millions ne ko liggéeyal dootul yalwaan. dootul ñaan mukk nga yëg nga ñàkk yëg yàlla kontaan na ci man fekkee naa benn scène boo xamante ni paa bi day yalwaan euh, gardien bi ñëw ne ko lu tax ngay yalwaan te yaa ngi bien important mu ne ko déet man aw ma aw ma ci lu ma jàpp aw ma doom aw ma liggéey euh, kooku ne ko gis nga fii chantier la euh, suba mën nga ñëw liggéey fi liggéey fi mhm. bu ko defee li nga fi am mu mën la jëriñ. paa bi ne ko waa dinaa ñëw. mais ba tey ñëwul. daf ci am nag ñoo xamante ni yalwaan a leen gënal waaw mais mais temps fan yi moom. yooyu itam baaxul. baaxul moo tax yàlla yër dina xool facilité tamit baaxul. gis nga gis nga. xam euh, fi nga koy tàbbal baax naa. mag dimbali néew ju doole yi dafa am ñoo xamee ni itam ñoo war yërëm seen bopp. bu la suñu borom baaxee doole boo xamante ni am nga am nga kattan jàpp ci dara. Mm, mm, mm. saalit baaxul. mais laaj Pape dafa am ñu war a yalwaan am ñu warul yalwaan. dafa am ñu war a yalwaan. Mm-hmm. am ñoo xam ni waruñu yalwaan. li ñu war a def mooy dem liggéey yi. c'est parce que ku ci nekk sa xel am na lu ci yàlla def parce man am na lu may jaaxal des fois lan nga xalaat ci par exemple nit koo xamante ni day yalwaan mhm. di gagner plus que mhm. nit ki koy sarax yana plus que cadre am na ñoo xamante ni métier lañu ko def métier lañ ko def métier ah mais yalwaan la te dafa am ay endroit spécifique yoo xamante ni fa la ñuy dem mhm. boo demee par exemple côté cathédrale euh, euh, boo demee boo duggee biir dakaar am na ñu seen ay endroit bopp kii ci ruqu almadi yi euh, des fois da ngay gis ay xale yu ndaw daf lay leer ni lii moom ay dil la. yenn saa yi nga gis sa ay moromu yaay yoo xamante sa yaram ah, dafay daw man damay mer des fois nga ñibbi yaay loo def ci almadi bi deux heures du matin des damay mer te daf may wër ne am na lu ma leen war a saraxe ah. hmm. am na ci ñoo xamante ni paratil et j'ai entendu ça hmm. que dañuy louer ay xale dañuy dem louer ay doomi jàmbur boot j'ai entendu ça ci enquête boo xamante ay journalistes ñoo ko def tegal ma ko aw aw ma lu ma leen jox buñ ne dañuy tere yalwaan Sénégal dafa am yërmande biñ ne dañuy tere yalwaan sax ci dëkk bi hmm. am na ñoo xamante ne dañoo jóg di hmm. ah, jàmmaarloog yoo ñooñu pour ñu tere ko pour ñi ko tere di jàmmaarloog ñooñu kon li Baye Cheikh wax ni dama ciy dellu si waat parce que bu ñu demee ci suñu mbokki waay laago yi ñu ci gën a bëri am nañ ay ay ay ak seen ak seen moroom yi mhm. parce que dama da waxoon naa fi benn émission ni leen tey ji pandémie bi dañoo war a xool loo xam ne mhm. dañ koy jox tey kii dund ak laago di taxaw di di yalwaan ñu jox ko départ mais est-ce que départ boobu boo ko ko joxee dana dana dana dana liggéey est ñu delluwaat ci ñuy loué xale mhm. yooyu. am na mhm. am na ci <laughs> ñaata dig ma rek. Mhm. am na ci koo xamante ni man maa ko gis. day dafa jël xale bu handicapé teg ko ci pousse pousse. Oh, te jur ko c'est catastrophique di ko yalwaane. yooyu baaxul oustaz. baaxul parents yi koy nangu sax. maanaam maanaam foo yooyu noonu. c'est pas boo dem rek. xaalis mais nag c'est pas am na lu bon dafa am. am na Sénégal am na France am na Makka am na ci dëkk oh. yëpp. pour na pas aussi. ak ñiy lem seen tànk yi ne dañoo kii. di tapale fekk dara dalu leen. <laughs> ñu ne leen war a dóor ñu ne leen war a dóor. di tapale ñii laago laago di tapale gis nga leen. waaw ñooñu gis nga leen. waaw am na ñuy lem seen tànk yi. waaw bàyyi benn kii bi génn. ñu mel ni dañoo benn tànk bi doxul. dañ ko dagg gisoo ah, ko. ñooñu dañ leen war a dóor. loolu baaxul. di yalwaan moom moom bu njëkk ma ngi ne ñaan kii dafa fañaak mm-hmm. waaw dafa fañaak mooy góor goo xam ni wala jigéen joo xam ne waaw bëggul ci boppam dara mm-hmm. nga yëg nag ñàkk yëg yow yàlla dañ na ci yow baaxul baaxul baaxul baaxul mooy fene ya moom la ñu soppi def ko feñaak c'est-à-dire comme li xale yi naan non dafa bëgg lu yomb dafa bëgg lu yomb waaw kay waaw waaw noonu la ko xale yi wëlbatee léegi mooy dafa bëgg lu yomb waaye ñi nga bi nekk ci laaj mm-hmm. pour man boo ko defee tuuti rek ci ci ci ci fulla ak fayda di nga am Euh, parce que dafa metti du ñëpp ngay tàllal loxo ñu jox la mm-hmm. yenn saa nit dina la jàndi ak yu mel noonu mais moi je pense que euh, c'est bien quand même de prendre des mesures et tout comme ni ko état bi di defee mais mesures yi non seulement dafa war a am suivi mais ñu mm-hmm. ñu sévère ñu catégorique par rapport ak ñenn ñi euh, parce que tey li Pape Cheikh doon wax naan ni que dañuy jël doomu jàmbur c'est-à-dire lu am la lu wér la lu ñu lu ñu lu ñu def ay jàngat la fii ci réew mi am na ay années ci ginnaaw mm-hmm. et ba tey phénomène bi peut-être que sax wàññeeku na mais dañul tey euh, gisoon nañ ni que euh, y a quelques années derrière da ngay gis ay maire yoo xamante ne xale yi ñu doon yor da ngay xam ni duñu sax ay doomu Sénégal mm-hmm. dañuy ñëw jàppandu la langaamu la jàpp sa tànk yi am na ci maire daa ànd ak benn xale tubaab xaw ma nag xàmmee ngeen ko yéen yàgg Dakar day ànd ak xale tubaab bi naar la xaw ma na waaw je sais pas nag moom ma ci wax dara waaw li <laughs> ba nga ba nga xamante ne blessé nga doon da boobu tam dara leeru ma ci mais nañu bàyyi loolu ñi kii war a dimbali dimbali ki mu war dimbali waaye kii bien important itam xaw ma nan laa ko mën a waxee ba mu leer nga ah, xamante ne dara dara jotul mhm. mu góorgóorlu itam mu góorgóorlu xam boppam ah, te bañ am na ñoo xam ni ñoo ñoo yalwaan mhm. mais du ñu yalwaan mukk am na ñoo xam ne bu nu xëyee amuñu lu ñu dëkkee mais munoo wax a wax ba nu yalwaan parce que seen ngor waaye nag booy joxe hmm. teg ko ci loxo borom bi subhanahu wa taala hmm. ak lu mën a xew rek ne lii kat yàlla def naa ko ngir sa jëmm ji hmm. waaw parce que dóorkat yi dañoo bari. Oh, ñii taxaw war a ñi ñi warul yalwaan am na ñoo xam ne waruñu yalwaan. fes dell et puis ñooñu sax mën nañu yokk propagation wu feebar bi. feebar bi mi ngi noonu. Ah. waaw moom daal moom daal nit buy def rek. Ah. defal te yàlla tax. yàlla ñuy fay te gis lépp te xam lépp yàlla moo lay fayal boppam alaaj Pam mu ngoog donc euh, euh, parenthèse bu ñu ibbi par rapport ak initiative yi nga xamante ni ñaatam ak euh, Mado indi nañ ko dinañu dem itam ci beneen sujet bu Coro préparé laataa ñu tàmbali nag waxtaan wi ak gan yu njëkk yi Abdou Aziz ngi ci ginnaaw. moom moo ñuy bégal tey ñu ngi waroon itam invité suñu ay xarit am na loo xam ne ni problème de coordination la woon ci sama xarit bu ma proposé woon ma am kuma ma ko invité donc ma foogoon ni kuy ñëw si kar la ndeke. ñoom programmé nañu ndeysaan lu mag euh, am ku waroon ñëw conférence jóge ba Sagata euh, waa kër sëñ Modou Guèye Sarr yi ba ñu indi euh, ku waroon sikkar pour ñu waxtaanee Cheikh na Cheikh bu xam naa dafa fàtte ni waxtaanee la ñu Cheikh na Cheikh Sadbu ba pare lii nag bu dul woon nag télé lu ne mën nañ ko def ci kër wala ci jotaay. Mm. waaye comme programme mu télé la dañuy teg lii tey lii suba lii gannaaw suba. Mm. am na yoo xam ne doo ko mën répété da nga koy bëtal ba beneen. donc moom xam naa naa leen tegal vidéo nañ ci am mbetteel euh, ci bi ñu séenee rek nii euh, am na ñu ne tey dañuy waxtaanee waat euh, Cheikhna Cheikh Saad Bou def nañu ko ba pare bërki démb loolee itam ñu ngi ci jéggalu bu baax xam naa dinañ leen tegal vidéo bi nga xam ne ni def na ko pour jéggalu puisque ñu bëreen ko doon xaar tey ak ki mu àndal sinon ñu maye tuuti ci ay enveloppe laataa ñuy fekk Sophie fa mu nekk bay àndandoog Corombaar Ndiaye ak li mu ñu préparé 88 628 22 22 88 628 72 86 ak 88 628 628 65 65 88 628 99 80 euh, allô. allô oui. allô allô. allô allô oui. allô. oui allô Pape Cheikh. waaw kooku. man la Mansour. yow la. Mansour. Mansour. waay waay. Mansour fan ngay wootee. ci face face de l'Orme. yaa ngi wootee face de l'Orme. oui oui. très bien dama la déggul bu baax nag lu ngeen def ak mbas mi mbàyyee na ngi moytu Mansour allo oui dama la déggul bu baax moo tax nga ni yaa ngi dëkkee Fass waaw Fass Fass la am ci vers est-ce que mën nga sori li sa gémmiñ peut-être ak téléphone bi allo oui ma jox la ci ndimbal loo bëgg dund bi wala njëgu dund bi. waaw yëpp yëpp la waaw xaalis bi moom moo la gënal que dégg mu ko bu baax Mansour nga ni. la mais xaalis bi moo la gënal kon ay ma ma jël benn ci enveloppe bi jox la ay Aïcha benn ngi ñaar fukk la def yaa ko moom benn cent mille la ngi. Ah, pour yow la dégg genn ndimbal la ci euh, euh, période bi et puis des surtout promotion bi démb euh, dinañu joxe cent mille yu bëri pour yow la bu raccroché comme ça ñu xool naka la ñu la koy yónneewee léegi nu mu gënee gaaw merci Mansour dañ ko jël ci ginnaaw donc cent mille yi ak enveloppe bi ko def Mansour a ko moom ma teg nii na keneen ñëwaat ma ta ma jëlaat beneen jox ko mm-hmm. ah desitu promotion démb bi la 88 628 72 86 ak 88 628 65 65 88 628 99 80 allo. allo kooku. allo waaw allo man la Maam Say Sogg. Maam Say. allo Sogg. Maam Say Sogg. Maam Say Sogg. Maam Say Sogg wax nga dëgg loo bokk ak ami Sogg bu Faatu Géwél. ah <laughs> Ami Sow tudd sama xarit la yow nga tudd naan Fatou ah, jàmm gën si Kambaaw. Ah, jàmm gën si Kambaaw nga dëkkee. waaw ngeen def ak jamono bi mbaa mbaa yéen ngi ci ah. jàmm rek. ñoo ngi ci jàmm nu ngeen defak xale yi mbaa mbaa mbaa dund bi mettiwul jamono ji. ah yàlla baax na yàlla baax na yàlla baax na ma mën ngaa ñaw yaay booy mën nga ñaw. Ah. Ah. mën nga ñaw. mën nga ñaw mën ñaw ñaw ñaw. ah kon bàyyi ma dencal machine bi ku mën a ñaw. Euh, léegi kon lii de laa la bëggoon may machine bi comme ça nga ciy ñaw di wut ay client plus xaalis plus dund comme mënoo ñaw nag bàyyi ma tegee machine bi nele léegi may la ñaar fukki junni neel benn. tegal la ci tegal la ci euh, tegal ci dund weer. diwlin pomme saabu masque visière tàndarma. soble meew suukar yëpp dama koy teg ci ñaar fukki junni yi macha allah waaw yaa ko moom Sog yaa ko moom yaa ko moom Sog jërëjëf Sog ok bul raccroché comme ça ñu jël la ci ginnaaw Euh, ñu mën a organiser ak rapidos naka nga mën a def ci euh, euh, nu mu gënee gaaw jot ci xaalis bi jot itam ci dund bi nga xamee ni dund weer lay doon ñu may la ko suñu yaay jooju doon wootee ca jàmm gën defe naa voilà foofu la wax boo amee beneen téléspectateur bu nekk ci ligne bi it ñu jël ko je rappelle que livraison yi moom jarta déplacé wu léegi da ngeen di toog seen i kër rek rapidos res lépp ba ci lekk yi ngeen di lekk sax guddi gi ak couvre-feu bi diggante 21 heures jàpp 5 heures du matin mën ngeen def seen ay commande Ousmane ci euh, numéro euh, euh, bii di numéro Rapidos donc Rapidos bu dee da ngeen bëgg dugg ci supermarché Rapidos bu dee da ngeen am lu ngeen soxla Rapidos donc mën ngeen a contacter directement Rapidos bu ko defee ñu jox leen ñu jëndal leen li ngeen bëgg indil leen ko seen kër parce que actuellement toog leen seen kër bi moom la ñu santaane à propos de toog seen kër bijou si boobu ba tey dafa toog këram on va la retrouver en visio télétravail bu ca kanamee profito ci rek gërëm bu baax Kabylie euh, xam nga nag Cheikh Acha moom euh, boobu ba tey maa ngi leen di wax ni bu dee euh, mi ci période bi bi donc faites vos commandes et puis on vous tamit Kati création ci tenue yi nga xamante ni moom la may baaxee donc Kati ñu ngi koy gërëm bu baax Kati création borom këram je rappelle que mën ngeen def seeni commande ci yére Euh, euh, yére yére yére korité euh, comme toog leen seen kër la ñu wax et puis ngeen contacter ko directement ci numéro téléphone bi ngeen di gis noonu ci écran bi donc Kati création que nous remercions pour cette belle création am na suma jabar joo xamante ni léegi la yónnee message nee na moom sa sa sa sa bi taille basse la ko bëgg a def. ndeef la tudd bàcc la jabar la jëkkëram tudd suma jabar la Samba mooy jëkkëram mais xale bu am fit la xale bu garaaw la nee daal dafa bëgg ma invité jëkkëram quartier général ma ne ko yow sa jëkkër kenn xamu ko mu ne ma il faut par la force nga invité sama jëkkër léegi nee na bu ñuy invité jëkkëram day loué car ay car lay loué yàpp ci seen waa koñ <laughs> waaw comme fekk pandémie bi def benn boobu lii ma do la bëgg a def tay baas boole ceeg benn bouton faat lawbe kooku amul yow moom dama lay booleeg alkaati yi comme couvre feu la ñu nekk ñu teel laa arrêté <laughs> voilà donc ñoom ñëpp ay soppee lañu euh, di àndandoo ak ñun ci guddi gi utile ak agréable information ak divertissement euh, loolee la ñu nekkee ci télévision Futur Média laataa ñu jàll ci euh, deuxième partie bi euh, ñu dem fekki Sophie fa ñu ko ber wii lañ ko ber parce que waañ moom mooy laboratoire u kër c'est ce que je dis souvent et que la fay jógee daa war set donc warul am benn contact ak ñun Sophie ñu ngi lay nuyu yow ak partenaires yi nga àndal ci xëdd bi nga ñuy toggal chaque soir